nuyu nañu leen ziar leen jox leen seen wàccuwaay di ziar kilifa diine yi waaye nuyoo boobu la dañ koy teg suñu loxo sëriñ suñu loxo maam muy sëriñ Baye Assane Seck Seck Mouride ñu koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér waaye di ziar chef de village bu ba di sëriñ Alsane ñaana Seck di ziar monsieur le maire Talla Diagne ak képp kuy kilifa rek buy yeewu fii ci ba ñu leen wax dal leen ak jàmm seen biir émission nawetaan nañu wax te bu ñu ne nawetaan faaw ñu dalal nga xam ne ñoom ñooy ñi ko jiite wala ñi nga xam ne mënuñu tudd nawetaan tudd ñu leen loolu tax rat tey ñu am benn gan gan goo xam ne dañuy bàyyi rat mu nuyoo su nuyoo di ngeen xam tey kan nañu dalal suñu biir émission. salaamaaleykum wa rahmatullah waa Thiénaba TV ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi nuyu téléspectateur Thiénaba TV yëpp. Mhm. di tàmbalee nuyoo bi ci le xalif général de Thiénaba. Mhm. Serigne Assane Seck di ko ñaanal mu yàgg fi te wér. Mhm. di nuyu kilifa diine yëpp. di nuyu kilifay aada yi tàmbalee ko ci suñu première partenaire wala sax suñu kilifa la ñuy wax muy le maire Talla Diagne ndax xam nañ ni sport moom compétence transférée la donc ñu ngi nuyu le maire de la commune de Thiénaba bu baax di nuyu ñi mu séqal liggéey bi ñëpp ci biir nuyoo boobu it su fekkee may nga ñu ko mhm. euh, dañu koy gën yaatal tuuti rek ndax itam euh, yàlla dafa dogal ñu def benn saison daaw te jotuñu woon a mën a am benn opportunité pour remercier ñi nga xam ni ñoom lañ ko seqaloon mm-hmm. ndax xam nga nawetaan moom ku ko wax xam ni principal partenaire nawetaan moom politiciens yi la mm-hmm. ak itam euh, sous préfecture mm-hmm. à travers la gendarmerie ñooñu moom dag ñuy baal rek may ñu ñu nuyu leen ku ci mel ni vraiment monsieur Babacar Ndiaye. suñu finaalu daaw jàpp na ci Ibrahima xalifa Ndiaye également bu cene ba horizon jàpp na ci euh, honorable Abdou Gningue également jàpp na ci ndax daaw dañoo def benn final boo xam ne pare wuñ ko kenn donc dañu ko boole ñëpp vraiment ñoom ñëpp tamit ñu am ci taxawaay ginnaaw bu maire commune bi defee li ci ëpp ñoom ñëpp kenn ku ci ne indi nga sa contribution ñu di leen ci sant bu baax également di leen ci gërëm di remercier également la gendarmerie euh, accompagner nañ ñu daaw tamit vraiment ci anam yu am solo ba permettre ñu ñu man li ëpp ci sunu compétition ñu dérouler ko ni mu waree kon daal ñu ngi sant bu baax di nuyu képp koo xamante ne si partenaire u nawetaan nga mais également partenaire u zone 10 à bis nga euh, présentation bi nag xam naa xëy na moom la ñu waroon jiital euh, maa ngi tudd Amadou Dieng nekk président zone dix à bis bi féete Bangaaj donc euh, loolu mooy suñu responsabilité ci nawetaan. waaye monsieur Amadou est-ce que mën nañu xam zone bi nga jiite kañ nga ko jiite. ñaata ay see la am. waaw merci ci question bi. zone bi nag existé na depuis bientôt trois ans. Euh, li ko def mooy ñu ngi doon fu ñu ngi bokkoon ci zone dix A bu ba mu nekkoon benn zone may nuyu au passage le président Ablaye jaw ak euh, membre bureau mi yëpp mais yàlla dafa dogal nit commune ba bindoo yàlla dogal sur le plan géographique ñu am euh, problème ci lu relier ñaari zones yi pour équipe jóge fële ñëw compétir si Thiénaba xaw a jafe yàlla dogal mairie bi accompagner ñu ñëw clôturer ñu terrain wu Bangaaj donc bi ñu ko mairie bi clôturer lee nag euh, ñu waxtaan Euh, acteurs yi nekk fii ci commune Thiénaba yëpp rafetlu ko gis ni daal vraiment le fait que ñu def ko ñaari zone wàññeewul dara ndax ñëpp fubal si ba baax na dëgg la waaye itam ñëpp bëgg a ñëw te mënuñoo ñëw également comme maire yi ñëw na ba fi ñu jege mu clôturel ñu fa terrain ñu gis ni nañu créer foofu benn zone donc ñu waxtaan ci ak waa ODCAV vraiment ñu jàppale ñu ci accompagner ñu ci donc loolu moo waral zone yi ñu sendee ko en deux euh, donc il y trois ans de cela donc zone 10A nekk fii ba di compétir zone 10A bis nekk fële ci Bangaaj di compétir terewul nag bu ñu àggee coupe maire ñoo koy bokk benn coupe maire la ñuy fubal bu organisation jotee tamit membre yi fële bu ñu amee jot ñëw fii membre yi fii bu ñu amee jot dem fële vraiment diggante ñaari zone yi nekk. diggante bu rafet diggante bu vraiment ri tax diggante bu am solo mais pour le moment daal ñu ngi compétir fële Bangaaj dañ fa am terrain municipal boo xam ne mairie bi moo ko clôturé. waaw zone dis à bis ñu ngi ci 8 ASC donc 8 ASC ñoo réaffilié donc pour war a compétir saison bi incha allah. est-ce que mën nañu xam boo ñu doon wax rek ci tënk rek lan mooy nawetaan loo ñuy wax. waaw jërëjëf ci question bi. Mhm. waaw nawetaan ñu bëri dañ koo jàppee fo peut-être xam naa fo bari na ci mais lépp sax nekkul fo nawetaan mooy activité bi nga xamante ni si bu vacances jotee comme élèves yi étudiants yi jàngalekat yi du am jot bu vacance jotee ñoom lañ ko réserver loon au début pour que ñu di ci daje di non seulement di ci développer sport mais di ci développer culture di ci am na itam développement ndax nawetaan ñu bëri dañu jàpp ni football kese la mais nawetaan du football kese donc activité de vacances la boo xamante ni si vacances la ci nit ñi di tase pour vraiment gën a xamante mais gën noppal seeni esprit changé air mais également nit ñi mën cee daja daal mu nekk communion boo xam ne bu am solo lay doon nawetaan lu am solo la parce que am na contribution bu muy def ci football kenn ku ci na xam na football importance bi mu am donc euh, c'est vrai que nit ñi yaataluñ ko trop nawetaan li ëpp ci football rek lañ ko yamale mais am na développement am na social vraiment am na culture nawetaan daal c'est tout un ensemble daal su ma la ko mënee waxee noonu. waaye est-ce que mën nañu xam yow ci zone bi nga nekk stade bi nga xam ne foofu la waa AIC bi di jouer est-ce que foofu lépp rek yemb na fa foofu ci stade ba ngeen. waaw question bi am na solo. waaw xam naa nag lépp mat yombul. ba tax na terrain bi moom vraiment lépp matul bëri na sax nag lu manqué parce que commune bi clocturer na ko euh, maire aussi ci vraiment ay moyens yabal na fa oto mu defar terrain bi dragué ko ba vraiment piste bi lépp baax ndax terrain bi ku ko xamoon xam ni ay garab yu mag ñoo fa nekkoon donc defar nañ ko maire ci ay moyens ba fi ne mënees na faa pratiquer football mais nag des na lu bëri parce que xam nga ku xam nawetaan ak engouement bi euh, nga xam ni ña fa nekk dañu di jàmbaar te xam lan mooy compétition mais kon def fa compétition du yomb parce que terrain boo xam ne amul grille de protection donc acteurs yi football ci terrain bi ak ñiy seetaan pratiquement dañuy contact direct la ñuy nekk donc xam nga loolu déjà c'est c'est un problème ñiy seetaan aussi dañuy taxaw dañuy taxaw ba match bi jeex zone bi góor góorlu na ba def fa ay banc mais banc yi mënul jël lu bari ci subvention yi ñu doon am defar nañ fa ay banc mais banc yi mënul jël nit ñu bari donc délégation équipe yi lay mën a jël ak peut-être délégué zone bi mais ñeneen nit ñi seetaan si ñëpp dañuy taxaw comme ni ma la ko waxoon aussi supporters yi dañuy nekk en contact direct ak acteurs yi ndax terrain bi amul grille de protection kon mu mel ni bokk na ci li gën a jàmp nga xam ne vraiment bu ñu sañoon kilifa yu jàppale ñu ci mooy ñu mën a am ab grille de protection boo xam ne day isoler supporters yi par rapport ak acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci biir terrain bi donc dina yokk sécurité bi mais également dina gën a yombal organisation bi. est-ce que dem ngeen ci kilifa yi pour ñu xool naka nañuy def ngir mën a saafar li nga xam ne moo di seen jàmbat. Euh, waaw euh, dem nañu ci mën nañoo wax ni dem nañ ci kilifa yi kilifa yi xam nañ ko yëg nañ ko euh, dañoo rafet njort itam ni rek comme commune na ku ko xam ni mu demee xam ni commune la boo xam ni moyens yi demewul noonu ah ñu ngi waxtaan ak kilifa yi vraiment itam nag ñi ngi ñuy dig seen kem kartan ñu ngi yëgit ay jéego yuñ ciy def ak ay yéene yuñ ci am xanaa dinañ leen ci soññ tey ñaan yàlla loolu jàppandi waaye ñu ngi kilifa yi yëg nañ ko xam nañ ko ndax it yàlla dafa dogal ñun ak ñoom ñoo bokk mbir mi chaque fois ñu ngi ñëw ci terrain bi bu ñu amee compétition finale ñoom ñooy ñëw di ko présider gis nañ euh, lépp ni mu demee ñu yaakaar ni ñu ngi koy bàyyee xel te di ci rafet njort. incha allah yàlla nañu faj li nga xam ne moo di njàmbat bi. xam ngeen ne nawetaan. dafa di po moo xam ne rek dafa laaj ay moyens. Mhm. waaye est-ce que subvention yi dina ñëw ci waxtu bi mu war a ñëw. ak li ñu leen jox est-ce que dina leen satisfaire. ana teel a ñëw. daaw nag moom nekk na année bu exceptionnelle. ndax dañu daan def bu subvention ñëwee. ñu dem euh, waxtaan ak maire. donc entre ñaari zones yi. suñu demee waxtaan ak moom. moom même bu fekkente ni si subvention yi génnagul au niveau du trésor. mu jéem a génne xaalis. Euh, jox ñu ñun suñu ay subvention ñu mën ko jox ASC yi à temps. daaw nag euh, xam nga jamono moom amul benn doxin daaw moom lu musul am moo ci am mooy subvention yi yeex na ba man am ik sama équipe yëpp sax football nañ compétition bi ba football suñu final ba mu jeex subvention yi di door a génn donte la nag bi mu génnee am na solo am na solo ndax nawetaan moom kenn mënul am lu ko couvrir kenn mënul am lu ko couvrir mais nag euh, vraiment appui la boo xam ne bu ñëwee aussi dinaa dimbali ASC yi dinañ ko soxla ndax néew na am ASC bu fubal match ba mu jeex ba compétition bi jeex te jeexale ko ay bor kon bu jeexalee ñu indi la subvention baax na waaye nag su mënoon gën a teel a ñëw aussi vraiment moo gën donc loolu moom ñu ngi ci ñaanaat euh, maire ak ay collaborateur am suñ ñu mënee dimbali daal ren ba balaa ñuy commencé compétition bi wala buñ ko commencé comme nam ko daan defee at yële daal ñu ngi koy ñaan vraiment mu jàppale ñu ci subvention yi ba mu gën a teel mais jàpp ndal mu ci daan defit diggante bàyyee ñoo TVA beeg yëpp jàppandal yooyu tamit ñu ngi ko koy ñaanaat ndax lépp rek bénéfice su jeunesse bi la donc lu mu lu mu gën a yéwee ne daal vraiment day daal di gën a baax. incha allah mhm. waaye est-ce que mën nañu xam lan mooy li nga xam ne moo di taxawaayu euh, ñi nga xam ne ñoo di waa gendarmerie ci nawetaanu foofu sa zone bi nga xam ne fa nga jiitee waaw gendarmerie ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen remercier daaw comme ni ma ko waxee rek des fois day am année yoo xam ni day nekk année yoo xam ni day day ñëw jafe mën naa wax ni compétition daaw ci la bokk parce que daaw équipe yi nekkul euh, zone yi nekkul jàmbaar footballu ñu seen final wala seen final tardé na début bi gendarmerie da doon ñëw di couvrir match yi correctement di ñëw di présent donte éléments yi du bari mais dinañu ñëw. ànd ak ñun accompagner ñu ba vraiment ñu mën a def sunu compétition correctement mhm. yàlla dafa dogal nag daaw euh, am incidents yoo xam ne dafa am ci lu ëpp ci terrain yi mhm. donte ñun yàlla dimbali nañu ci bokkuñu ci mhm. mais mu bari fu mu am ci Sénégal loolu it li ko waral mooy arbitre yi ñoo arbitre professionnels yi dañoo grève daaw donc ñu am ay arbitre yoo xamante ne si dañu leen a jël sur le plan national ñu commencé di arbitrer compétition yi mm-hmm. mais xam nga match moom li ko gën a mën a yàq mm-hmm. mooy arbitrage bu baaxul mm-hmm. te loolu moom faw ñu reconnaître ko que ni daaw moom arbitre yi vraiment ñi ci ëpp nekkuñu woon à la hauteur donc loolu andi woon na ay frustration ci supporters yi ba violence bari fu mu am donc euh, ci la kilifay gendarmerie jëlee décision tere seen éléments yi ñu couvrir match nawetaan yi jafe woon na nag ndax xam nga gendarmerie moom bu fekkente ne si teewuñu ci terrain terrain boo xam ne la fa nekk supporters yi presque mat nañ miil kenn ku ci ne war a lijjanti sa bopp dëgg la sensibilisation bi dina ci baax waxtaan bi dina ci baax mais itam présence yu gendarmerie moom daaw pénaliser nañu trop ba bi ñuy football final lool dañoo topp ñun daaw wut nañ fi sécurité privée wax wut nañ fi ay ASP vraiment daal dañ koo débrouiller mu metti lool ndax ñooñu ma la wax boo leen di andi du bokk ak booy andi gendarmerie seen présence yi aussi impact yi du bokk ba tax na ñu ngi ñaan sous préfet euh, ak préfet ba ci gouverneur ak kilifa yi nga xamante ni si ñoo jiite nawetaan ci kaw luñ ñu mën a jàppale daal ba vraiment gendarmerie dellu si waat ci terrain yi loolu moom dinañu dinañu jàppale trop parce que seen absence nag vraiment dañ koy yëg trop surtout ci sur le plan organisationnel. wax santé. Mhm. ndax it foo xam ne ay mbooloo dañu fay daje. Mhm. ñu nekk ci stade bi di football. laalante mun a ñàkk ak comme ni nga ko waxee sécurité bi léeg-léeg mhm. du demee noonu kon du ñàkk ay laalante am fa waaye est-ce que santé bi dina fa am taxawaay bu ñoo dimbali stade bi dafa jàkkaarloo ak euh, poste de santé bi donc ñi nga xamante ni si ñoo nekk ci poste de santé bi puisque ay jeunes lañ comme ñun donc euh, bu compétition ñëwee jot amee dañuy ñëw mhm. nekk ci biir terrain bi mhm. donc euh, bu ñu soxlaa ñu assister ñu mhm. bu ñu soxlaa évacuer nit nga xam ne dañ ko war a yóbbu ci poste bi aussi balaa ñuy am jafe-jafe dinañ mën a accédé ci poste de santé bi donte sax yàllaa ngi ñuy dimbali ba peut-être xëy na yooyu rencontré guñ ko trop rencontré guñ ko trop mais ñoom seen présence dañuy anticiper yu bari ba tax na vraiment Mm-hmm. yàllaa ngi ñuy dimbali daal ci problème mu santé mm-hmm. jàppale giñ ci war am en collaboration ak poste de santé bi mm-hmm. ñu ngi koy am ni ñu ko ni ko bëggee. waaye jeune bi nga jiite est-ce que am na ay jafe-jafe yoo xam ne yéen a ngi koy jànkoonteel bu fekkee lu am la yan xeetu jafe-jafe la. waaw jafe-jafe yi moom bëri na. parce que énuméré woon naa la jafe-jafe yi ñu am ci stade bi. mais également xam nga équipe bu mel ni mbaaleen wala jaayaan. seen diggante ak terrain bu bangaaj mat na pratiquement cinq voire six kilomètres mm-hmm. amul yoon mm-hmm. donc pour que équipe yi déplacé wu ñëw vraiment dina metti mm-hmm. ren sax am nañ suñ benn équipe boo xam ni malheureusement ñëwul muy Kër Yaaba te loolu moo leen teree ñëw vraiment jóge Kër Yaaba ñëw Bangaaj difficulté la boo xam ni vraiment yombul ndax bu dee oto bu ndaw mën na fa jaar sans problème mais bu fekkee xam nga équipe bu nawetaan moom mënee su koo déplacé ak oto bu ndaw donc loolu problème la problème la donc enclavement bi joué na ci trop donc enclavement bi joué na ci euh, lu bari lu am solo donc xam naa ne loolu daal bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ni yu gën a am solo la à part loolu équipe yi amuñu moyen mhm. mais dañuy débrouiller à l'interne mhm. bu cotisation jotee ñii cotiser comme ni ko équipe yëpp di defee ah. parce que comme ñun amuñu ay ASC entreprise moom. donc bu mat yi jotee kenn ku ci ne lu mu am def. donc loolu rek la. donc équipe bu ne débrouillé ba compétir rek. est-ce que mën nañu xam ba xam tirage yi def ngeen ko. waaw tirage guñu. xam naa ñu ngi koy wàcc week bii di ñëw incha allah. donc am nañu réunion bureau. donc ci lañ programme defaale tirage fixé waale également datu début compétition bi. Mhm. comme ni ñu ko waxee rek si suñu tàmbali wax nawetaan foowum ndaw la. Mhm. kon violence amu fa li nga xam ne moo di wàll. Mhm. ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñoo nekk ci ASC yi pour bu ñuy ñëw ak supporters yi. comme ni ñu ko daan faral di defee rek. Euh, nawetaan daal ak compétition bu mu mënti doon. bon adversaire nga am. adversaire du jour donc da ngay am sa adversaire du jour donc mais warul nekk koo xam ne dafa nekk sa ennemi euh, nawetaan aussi booy dem da ngay wuti sa moroom di wuti li équipe yi war a éviter te nga xam ne bokk na ci li indi violence mooy di dem terrain pour jàpp ni obligatoirement da ngaa war a gagner compétition da ngay gagner wala ñu gagner la wala nga match nul mm-hmm. lépp valable na boo gañee nga jubilé encourager sa adversaire bu ñu la gañee également nga dem defaru waajaat boo match nul également xam ni résultat bu positif la mais compétition moom doo dem pour jàpp ni da ngaa war a gañe euh, li ma waxoon léegi aussi mooy dinay indi problème mooy arbitrage mais arbitrage aussi dama leen koy wax arbitre acteur la boo xamante ni si daa bokk ci compétition bi donc da ngay gis koo xam ni sa défenseur dafa war a dégager bal juum attaquant adverse bi dugal wala attaquant adverse bi ñëw ba war a dugal juum raté te doo ko saaga doo dugg ci terrain bi doo def ki kon même arbitre bi aussi bu defee erreur nga xam ne non seulement doomu aadama la mais acteur la ci biir acteurs yi donc ñu jàpp ni dafa juum rafet njort donc continuer compétition bi continuer donc mais xuloo xeex jàppante vraiment werante loolu moom bokkul ci nawetaan bokkul ci football te it vraiment amu ci yoon daal. waaw comme ni koy waxee rek nawetaan de delà que ne sport la waaye dafa nekk loo xam ne ndaw bi war na faa jëli li nga xam ne moo di éducation ki nga xam ne moo nekk ci nawetaan yi nekk ci di football la war a xaar ci nawetaan yi donte foo rek la moo ko tax a jóg ci nawetaan yi. Mm-hmm. waaw déjà nawetaan kenn ku ci ne war nga cee xaar yokkute. Mm-hmm. yokkute bi mooy nga xam ci acteur boo xam ni. Mm-hmm. xamoo ko woon mais nga nekk exemple. parce que ci kaw loolu exemple bi ma fiy jël rek mooy bi fi Covid bi jaaree donc ñuy wax ni nit ñi nañu vacciné wu bu ñu vacciné wu message bu ne nit ñi lancé ko lu ne nga di ko dégg man en tant que président zone dama vacciné wu mais bi ma vacciné woo gis naa ni acteurs yi ñoom ñëpp dañoo accepté vacciné wu ba vraiment mu nekk lu am solo ba sax am na benn anecdote bu ci amoon muy man vaccin bi ma vacciné woon muy AstraZeneca su jóomul mhm. bi mu manqué ñoom ñu ci bari dañ ni doon ñoom boobu la ñuy vacciné woo quoi ah. parce que man moom laa vacciné woo woon mhm. donc nawetaan mën nañ ci jaaree mhm. di lancer message yu positif parce que ay ndaw a fay daje ay xale daje tey lu nit ñi bëgg la donc mën nañ ci jaare di lancer message bu baax mën nañ ci jaaree également di lancer message bu baaxul kon responsabilité wu ñi ko jiite la pour que vraiment ñuy góorgóorlu di def ay don de sang bu bu feebar amee ñu di ci wax di sensibiliser nit ñi ci lu baax di leen wax comme ban comportement la nit war a am di organiser ay cours de vacances pourquoi pas parce que fii au niveau de Bangaaj ASC Rakkaaju dañ koy def dañuy organiser ay cours de vacance ba élèves yi ci gën a constant gën a nangoo ñëw ci cours de vacances yi sax dañ leen di primer ba vacances yi di jeex loolu yëpp ay avantage la ak i intérêt yoo xam ni nawetaan mën na ko andi te ci li gën a ndaw la parce que rôle ASC moom euh, du du daanaka dafa war a nekk acteurs yi gën a jege nit ñi ci di leen jàppale ci lépp lu positif mais di leen sensibiliser aussi pour que nit ñi mën a nekk ci environnement bu baax mais it mën a nekk ci jàmm ak salaam jërëjëf monsieur Amadou Dieng ci leeral yu am solo yooyu développé nga ay points yu am solo est-ce que mën nañu xam lan mooy doon sa kàjju bu mujj nga profité rek wax ñu loo xam ne peut-être laaj ñu la ko nga joxe ci li nga xam ne moo di ay leeral mu doon message rek. waaw jërëjëf loolu de xam naa di rafetlu rek nekkin bi nga xamante ne si moom la jeunesse su ba nekk. parce que itam euh, ñu bëree bëree bëri dañuy am impression jeunesse su ba dañoo diviser wu wala di mais déedéet loolu amul ba ci ñaari zone yi li ko sabab bokk na ci comme ni ma la ko waxee problème mu géographie donc nit ki ñëw intègre football si fii jafe na waa Thiénaba jóge fële football yi fële jafe na donc mais jeunesse bi yëpp benn lañu bu finaal amee man su ma ñëwee fii président Ablaye jaw day wax ni léegi moom amatu fi lu muy wax man mii aussi su final jotee su ñëwee. lépp moom laa koy bàyyee dis sax duma ko jël donc loolu rafet na donc ñu di ci encourager jeunesse bi mais di leen wax ni itam nit du yàq lu mu moom stade yi nga xamante ne si moo fi nekk malgré maigre moyens yi nga xamante ne si euh, autorités yi am nañ ko ñu ngi góor góorgóorlu di ci jéem sedd jeunesse bi li ñu moom mais vraiment matchu nawetaan am nit ñi di dàjj ay grille de protection wala ñu yàq ay guichet wala kii noo loolu moom vraiment du lu war a am mm-hmm. te it euh, du lu rafet loo xam ne boo ko yàqee bu subaa da ngay dem di ko wutiwaat vraiment loolu rafetul mm-hmm. violence yi ci am tamit ñu di ko moytu mm-hmm. parce que vraiment gendarme yi nga xam ne ñoo ñëw nekk ci suñu biir ay jeunes lañ comme ñun euh, damay wax ni waruñu nangu sax ñoom ñuy dugg suñu diggante di ñu wax def leen lii wala wax leen lii au lieu que ngay xaar gendarme bi ñëw di la wax defal lii nga def ko sa grand frère mi ngi ci wet gi sa mag ngi ci wet gi bu la waxee defal nangam def ko avant la ko gendarme bi di wax mm-hmm. donc euh, loolu la rek ñu def ko ci jàmm ak salaam mm-hmm. saison bi aussi ñuy ñaan yàlla mu dimbali ñu mm-hmm. euh, lépp déroulé ci jàmm ak salaam vraiment ba jeunesse bi man ci gagné. lancé waat message rek comme ni ma ko waxee woon parce que nawetaan moom seen première partenaire politicien yi la. donc ñuy xamle ni ñun zone moom mhm. nawetaan kenn ku ci ne xam nga ni dañu koy tere mu dugg ci affaire politique mhm. kon xëy na féetewuñu benn politicien mhm. ñun moom sunu zone féetewul ak kenn féetewul ak benn politicien képp koo xamante ne si ni am nga loo ñu mën jàppale vraiment ñi ngi koy xaar parce que zone yi amuñu moyen képp koo xamante ne si aussi compétition bi ñuy def gis nga ni kan war nga mën a ñëw ne ko. pour andil ci jeunesse bi un plus ñu ngi la ci tàllal sunu loxo ñu ngi la ciy xaar. jërëjëf monsieur Amadou Dieng ci nangu bi nga nangu wuy si tey suñu invitation. wax nañ leen ko tey émission nawetaan la nawetaan nag bu ñu ko waxee faw ñu dalal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp ba monsieur Amadou Dieng bi nga xam ne moo jiite zone 10 à Bise bu nekk fii ci zone nord kon tey moom nañu dalaloon tey suñu biir émission nawetaan